ak Jibril Ngom comme moom yàgg na ko def te xëy na tey Jibril Ngom ko ëpp sens mosul am sens bi mu ne xaaral ma gën a accélérer mbir mi gën a dal ci kaw waa parti Pastef sosal leen yàq seen der mais lii dafa ñaaw ndax dafa nekk loo xam ni dafa fës ñëpp teg ci seen bët ndax Jibril Ngom mi ngay défendre li ngay défendre moom démentir na la ci page Facebook bu buñ sukkandikoo ci li nga xam ni loolu la bind lii di firndeel rek la góor ga daan wax naan Sénégalais yi dañuy fen ba far gëm seeni fen dañuy fen ba far gëm ba far gëm seeni fen xam nga yow ak sunu politiciens yi des fois doo sax comprendre doo xam ñoom ñoo nekk ci jamonoy 1900 ba léegi wala yow yaa nekk ci jamonoy 1900 ba léegi parce que naka nga mën a comprendre di défendre koo xam ni moom moo bind ci page Facebook am ni ki nga xam ni mooy président de la république recevoir na ma ci audience bu toll ci 15 minutes bu gàtt boo xam ni man maa ko sàkku woon waaye nag am na coolu nit ñi di wax loo xam ne du dëgg muy lan. am na benn enveloppe boo xam ne dëgg la mi ngi sama wet mi ngi si sama côté enveloppe boobu Macky Sall la joxut ma ko man maa ko indaale maa dugg ak moom ci pale bi enveloppe la boo xam ne dañ ma ko joxoon ngir ñu ci financer li nga xam ne mooy suñuy activité politique ci fi nga xamante ni moom mooy maatam lii moom moo ko bind moom Djibril ngoom ci page Facebook am mbokk yi en tout cas man jaaxle naa lool ci li nga xam ne mooy régime Macky Sall bi parce que booy xool ni ñuy doxalee li nga xamante ni temps biñ jël pour yàq temps biñ jël pour sos temps biñ jël pour yàq deru nit en tout cas buñ jëloon temps boobu ci defar réew mi tey jàpp naa ni Sénégal dina bokk ci réew yi gën a développé ci duma wax sax ci Afrique mais ci àdduna wërngal këpp mbokk yi maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen jox di daje ba beneen yoon ci beneen vidéo jërë ngeen jëf